moom raaroon na ay jamono réeroon ñu di ko seet ba gis ko indi ko jamono ji nag mu ngi te dëkk bi ba mu dëgër euh, defe naa client bu naan mun yomboo la jot rek ci yow la war a insister bu baax a baax te xam ne instant bi mi ngi def lu mu man ci liggéey bi fi mu nekk nii nag euh, mi ngi dakaar mi ngi baagante dëkk yépp nekk ci seen soxla bu baax a baax sëñ As Birane Seck borom leeral yaa ngi ci Tektal TV sa télé émission Tektal looy nuyoog àdduna wërngal këpp bi lay seetaan te ñenn ñi du doyal ci say émission di guddi gi. Mm-hmm. ñu koy seetaan ñii di téléchargé te ñii di ci dagg lu leen neex di ko tas fu ne. Mm-hmm. ndax sa émission njëriñ ci nekk. looy nuyoog àdduna waroon këpp. asalaamaaleykum wa rahmatullah rabbi sadri amri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani mbokki yi maa ngi leen di nuyu <clears throat> di leen ziare di baalu àq si gëj a déggante yi ak gëj a gise yi di sàkku si ñëpp ñaan di nuyu sama. kër gi muy Tektal TV muy teg télé boo xam ne miin naa fi muy sama kër di sama lépp maa ngi leen di nuyu di nuyu bépp jullit asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. maaleykum salaam jërëjëf euh, sëñ As euh, Birane Seck bu baax a baax ci dalal la ak tamit euh, sa wax yu am njëriñ ak yar gi tey gi dal gi nga xam nag maanaam sa feeñ daal njëriñ a ngi ci. ñu bari ñu ngi ci jariñoo di wax nit ñi bàyyi leen toog di wax naan ko xam dara ma nga àll ba toog hmm. naan ko xam dara du génn ci internet bi tey wax leen ma kenn ku baax ci àddina bi rek koo xam du leen ko gis ci internet ku baax ci àddina bi ñu mag ñaag ñi fi nekk ak ñépp dañu génn ci internet internet génn ci araamul télé génn ko araamul dëkk Dakar araamul gis nga nag sëriñ bu nekk ci YouTube di def lu dul dëkk ak sëñ boo xam ma nga koñam di def lu dul dëgg loolu du dëgg foo man di dëkk boo deful dëgg rek nekkoo ci dëgg boo nekk ci dëgg yaa ngi ci dëgg yàlla mu bëggoon ba léegi hmm. bañagu ko lam bañoon ba léegi bëggagu kon dëgg rek a wóor kon génn ci télé bi jëriñ junniy nit nag moo gën toog sa kër jëriñ téeméeri nit waaw ku ci man dara daal ne kii yu mel noonu même bu ni aji màkka dañ koy yëgle bu ni dem màggal Tuubaa wala gàmm dañ koy yëgle ku ci am sa bis dañ koy yëgle <coughs> communication moo toll foofu kon nag wax loo man def loo man tëdd nelaw ku man ñett yem ci ku man ñeent yem ci ku mënul mu jàngi ñun daal fekk nit a ngi maandu ci li man rek <coughs> yam ci jàmm leen am bu baax a baax sëñ Asbirane Seck mm. côté boobu da lan nga ci wax ñi nga xam ne que dañuy taxaw naan sëñ bu dëkkul Dakar mm-hmm. te fekk euh, ñoom ñooy taxawaat ne dakaar kenn dëkku fi ñëpp mm-hmm. àll ba lañ jógee mm-hmm. ñoo ko man du génn ci télé bi wala nag ay xeetu yox yoo xam ne que nit dañ ko wax te teguñu ko fenn quoi waaw côté boobu fa tabaarakalla dinañ si wax. Mm-hmm. ndax dama ne nit ki soo yoree xam-xam te wane ko amul njëriñ. yàgg mala yi yéen a yem. te yaakaar naa ne jamono ji monde bi. Mm-hmm. Euh, si ñu euh, mel ni tegtal si nga mën a xamee lépp. Mm-hmm. ndax ku nëbbatu doo feeñ. waaye ku génn feeñ. te boo yoree xam-xam da ngay génn ndax nit ñi mën ko jariñoo mm. waaye boo làqatoo parce que tey ñun ñi si àll ba lañ dëkk mm. euh, bu ñu toogoon si àll ba Casamance wala Diourbel kenn duñu xam mm. amaana waa dëkk bi rek ñoo ñu xam waaye nag boo ñëwee Dakar wala nga nekk Espagne wala foo mën a nekk nit dana la xam kon daal li may wax mooy nañu bàyyi xel na boo yoree xam-xam da nga koy génne da ngay ñeme feertu feeñ parce que tey ustaas yi ñuy waxtaan si wàllu diine bu ñu feeñu télé ku leen di xam. tey oustaz ñi ngay dégg yëpp si hmm. diine. tey sooseen oustaz Pape An Ndaw Adi Niass ñoom ñëpp. ziar nañ leen ci weeru koor gu weeru sell wi ñu génn. Hmm. ak. Hmm. ku ku ne daal waral. waaw weeru weer yu njëkk yëpp dafa sell. kon tey lépp lu nga xam ne nekk na si. kon boo amee xam-xam nga ko war a génne. Mm-hmm. wan wane. Mm-hmm. waaye nag gars yi dañ naan sëriñ si ñi nga xam ne dañoo aay ña nga àll ba. waaw waaw dëgg la mais nag. Euh, eh, wax yu tegewul la daal. <laughs> yaakaar naa wax yu tegewul la daal. Mm-hmm. ndax waa àll ba dañuy ñëw di ñaan lu si yow. waaw waa àll ba dañuy ñëw di ñaan lu si yow. kon nag fa tabaarakallaa ñu bàyyi si xel bu baax a baax. kon daal day mel ni nit bu dundee ba deux mille vingt deux vingt trois. Mhm. mosul ñëw Dakar rek ay na. Mhm. mosul ñëw Dakar ayatu. Mhm. bu duggee ba deux mille vingt deux vingt trois. mosul génn ci télé bi ayut. mais bu génnee ay na mais bu génnee télé bi ayatu. <laughs> ay wax wax yu tegewul la hmm. yooyu moom ay wax la yoo xam ne tegewul daal. ñu bàyyi si xel bu baax a baax a baax. macha allah te nag defe naa man génn sax lu ko gën a leer amul. joxe say numéro adresse ak fi nga dëkk nit ñi xam ne fii la lay fekk. ah. bokkut bi def na toj bi fii la dëkkoon tuxu na ñu koy wër wala anam foo jëlee numéro am nga ne nitama ko jox nitama ko jox waaye ku joxe numéro am yaakaar naa ne jub na jub na wala yaakaar naa ne la muy woote mu ngi si moom mu ngi si moom mhm. masha Allah foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di neexul ki wax ci salle bi mu noppi ki dox ci mbedd mu dugg ci numéro Serigne As Birane Seck numéro mooy Serigne bi nekk ci Ouest Foire

Euh, numéro yi am na whatsapp yow mi nekk bitim réew nga woote normal boo ko jotul nga sa tamit ak nga def audio yu nga defal ko audio yu 10 minutes nag ah. Hmm. Euh, bu dee mënoo ko jot tamit parfois réseau bi këram day am problème réseau day def 33 fixe bi 824 72 09 33 824 72 09. Serigne Asbirane Seck boroom leeral nekk ci Ouest Foire case des tout petits bi rek. nga woote di ko soxla lu mu ci mën mu def ko léegi ñu bàyyi yàlla moo xam tëlewul dara te mën na lépp dina faral di nekk Casamance dina faral di nekk Diourbel mais Ouest Foire daal mooy yëpp woo ko rek nga dem gis ko surtout ci whatsapp bu baax a baax a baax a baax nga insisté ci di nga ko jot sëñ bi Birane Seck euh, dana ñëw ci jamono ji nga xam ne que euh, rab yi wax dëgg yàlla sonal na nit ñi wala sëriñ si sonal na rab mhm. xam naa li ma naan tribunal buy àtte rab yeeg nit ñi moom buñ amoon moo sëriñ sa kalaame ba dina bari trop mhm. lan moo waral mu mel ne bëggul lu baax lu bon da ko tax a jóg mhm. wala rab buy dox lu baax am na mhm. wala rab kan mooy seen président ba ku wax ak moom nit ñi am jàmm wala kan lan lan tooñ rab yi seen président mu laaj ko ñu def ko pour am jàmm nit ñi am jàmm moo gën surtout xale jigéen yi sëyatul ne rab ñi amatul liggéey góor ñi ne rab ñi takkul ñi tas ak si jabar ne rab ñi bëgg a tukki mu sotti mu sottiwul ne rab joueurs yi dàqarate occasion sax tam ne rab la quoi. rab la fu jëm ak moom. waaw fa tabarakallah see xam nga rab dafa bokk si doomu adama mm. te rab euh, dafa doy waar. Mm. te damay wax ne lu bokk si nit pour nga génne ko dafay jafe. ndax tey mu ngi mel ni ku am kër. Mm. tabax ko nga xëy ñu la kër gi moom ko keneen ko moom. keneen ko moom pour nga nangu ko dafay jafe. te lépp lu nga xam nekk na si yow. Mm-hmm. lu si bokkul bu ñu ko dindee nga yëg ko. Mm-hmm. te jamono ji nag dañ siy wax leen. Mm-hmm. mooy képp ku nga xam ne rab dal na la. xam nga dafa bëri façon li si yow. bala nga a génne dara nag faaw nga xam la moo nekk si nit. ndax amaana nit rab dina la jàpp. bu dee jigéen nga. booy gis mbaax mu koy def nu ko neex di ko di ko tardeel. di ko retardloo wala di ko anticiper. di ko anticiper. parfois dina ñëw di ko di la jàpp say bët. parfois dina la merloo hmm. am na si ñoo xam ne dinañ def dara seen borom kër après di ko rëccu ñu naan jigéen bi nu mu bone wala nangam parce rab dafa nekk comme seytaane parce lu gën a fort si doomu aadama may <coughs> si yàlla doomu aadama la waaye lu lu bokk si yow nag nga xam ne mu ngi mel ni rab hmm. wala seytaane wala leneen néew na lu lu lay yóbbu lu baax lu bon hmm. rek la lay la lay xéetal parce am na ñoo xam ne nag seen rab daf leen protéger si lenn boo leen liggéeyee doo leen jàpp waaye mais nag moom loo leen liggéey tey doo leen jàpp ñu am samay mbir taxaw na mm-hmm. dara bu ñuy sangu soo du sotti waaye boo leen yóbboon si lu bon tamit dugal leen fa doo leen jàpp kon dafa am noo xam ne daf la koy def mm-hmm. am na si ñoo ñoo xam ne bu ñu tëddee mel ni seen borom kër la ñuy nekkal te mm-hmm. day seen diggante ba daanaka ngay gis ki naan yëguma bànneex kii naan man sama borom kër bu nekk bu taxawee si man sax sama yaram day tàng du ko dama koy jéppi yooyu yëpp dafay am léegi nag si loolu bu amee am na saafa loo xam ne di ko def mm. soo ko defee da nga koy dindi ba mu set wecc te du ñëwaat mm. da nga koy raxas ba mu set mm. bu dee si wàllu góor la tamit noonu lay ñëwee am na mais mm-hmm. euh, doomu rab mm-hmm. <laughs> waaw xam nga euh, faru rab xam nga <coughs> tey doom ak faru rab li si wax bokkul ndax neen la nit da nga dem benn kër bu bëgg a jënd kii ñu ne ne tey boo gasee fii ñu ne doomi rab bi moo fa nekk. doomu rab moo fi nekk xam nga. Mm. bari na xale di fooy fii ba jékki-jékki daal di jommi. Mm. ñu ne lan moo fi ne lan moo nekk si kër gi fii. Mm. yow doo ko gis ñu ne dafa am rab. wala noo moytul fii parce que xale yi ñoo fi ne. wala nangam parce dina am. waaye nag li nga xam ne dafa nekk si yow. mu nekk kenn bu duggee si yow. dafay feeñu. même boo amee njaboot tamit dafay dugg. di si bokk. ni ngay amee njaboot noonu lay màggee tamit. Mm. noonu lay defee di am waaye parce que bu day bàyyi ba ngay tëdd nekk sans sa borom kër. Mm. ñëw di gént bu dee jigéen la. Mm-hmm. ne man dafay mel dafay daf may xoj. Mm-hmm. day téye sama baat dafay téye sama kanam mu lay jox jëmmu doomu te doo xam ne moom la. mais lan moo tax solo seen mm. waaw mu ngi mel ni xam nga tey <clears throat> ñun ñëpp xaalis lañ bëgg. waaw par exemple doomu aadama xaalis ngay ngay ngay ngay laaj par exemple. Mm-hmm. di ñaan yal na ma yàlla may alal mm-hmm. yal na ma yàlla may wér-gu-yaram waa tey nag noonu noonu la mel si yow rek ñun mm-hmm. ñun lañ bëgg parce que ñun ñoo leen di jariñ ñoo leen di jariñ ndax bu ànd ak yow ni muy làqatoo si man di ma gaañ noonu laa làqatoo si moom di ko arrangé moom lan mooy différence entre rab ak jinne <coughs> bëri na xam nga nit ñi nit nag jinne dana ko jàpp nga ne rab la foofu tamit euh, dinañ si sawar a tontu. parce que xam nga jinne moom euh, daanaka jinne bu bu baax. Mm-hmm. damay wax ne bu lay dugg néew na nit xam ko. Mm-hmm. ki toog naan jinne laa wala jinne lay àndal ak. Mm-hmm. jinne noonu néew na muy nangoo wax nga koy wax fen waaye moom si biir ni nga nekkee daf lay feeñu du la dugg. soit mu bëgg la ànd ak yow. soit mu nekk ànd ak yow. soit mu jàll waaye rab moom daf lay bëgg force. dugg dugg la du xaar. xam nga rab bu lay daanee dafay làmboog jinne da gis kuy kuy say su fekkee ne rab la say boo daanu da suuf nga jëm bu sa laa laalee suuf ñu ne nalaw na boo jëlee xorom sax mu nalaw parce que rab moom bu xasee bu la xasee daal rek suuf la la jëmale mais bu dee jinne da ngay siggi da ngay tëb daf lay tëbaloo dangay ngay jël say bët sànni si kaw bu dee wàllu nag <coughs> jinne mhm. say bët da nga sànni si kaw mais bu dee rab mhm. da nga koy sànni si suuf da sànni si suuf moo tax nit bu fekkee ne jinne moo ko jàpp mooy gën a metti fuuf mm-hmm. rab ñii daanu si mbedd yi de wax yëpp da nga ànd leen doon la wax sax rab la jàpp jinne moo leen jàpp saytaan ni mm-hmm. parce que dañuy dangay ngay siggi mm-hmm. mais bu dee rab nag daf bu la daanee rek simal ak sala da ngay da ngay dopp macha allah kon bokkul daal léegi lan moo waral tey par exemple xam ku defoon déclaration jékki-jékki rek saaga ñu bari ci nit ñi di nga gis ku la indil problème léegi ku jékkoon jékk rek sa def déclaration saaga rab yeeg jinne yi ci micro mu tas. Mhm. tas ci tiktok beeg fu ne rab yi dinañ jékki-jékki rek xaaral ñu jëflante ko yow wala. Mhm. xam nga rab tamit dafa nekk ñoo xam ne ni ñi amee doomu aadama noonu la yàlla bindee. Mhm. muy jinne muy lépp. nit da ñëw di jéem a dindir nit rab dal ko sax guddi nga jàkkaloo ko rab ba. baa mu kéré la da baa mu këpp sa njaboot. parce que loo lu bokk si yow. nga bëgg ko ñëw dindi. da ngay xeex ak moom moo tax nit da ngay xool mën nga gis rabam nii mm. nga jox ko garab mu dem ba koy sang mm. mën na koo dem sangu sax ñu solal ko baas mu mel ni lu mu sangu day tuur mu ne kii aayul xamul dara mm. fekk da war a xam ba ndax kii boo ko sangee arabam may na ko fu mu noyee wala déet may na ko fu mu noyee wala déet mm-hmm. Mm-hmm. gis na ne sëñ Ass Birane ci biir sëriñ si xuma lay wu bees la xuma mm-hmm. da ngay dégg ñu naan kuy yóbbante ay garab bitim réew rab yi mën nañ ko yàq ci yoon bi loolu est-ce que dëgg la wala Ah, xañ na ñoom ñoo koy wax waaye damay jàpp ne. Mm-hmm. boo defaree say garab ba xam tour doomu aadama. Mm-hmm. bala nga koy yónnee garab yi war ngaa xam xam faju na wala faju mm-hmm. ndax eh, boo gëmee ne yàlla moo koy may te yàlla mooy faj. benn baatu alxuraan boo ko bindee. ku nekk foofu bu doon France nga ko yónnee. jàppal ne boo nekkoon tey bindal Fatiha Falaq ak Naas. nga ñaan si yàlla kon kay boo ko yónnee Fatiha Falaq ak Naas war naa àgg. waaw waaye bu fekkee nag danga nga jiital na seytaane la mm-hmm. wala nga jiite na jinne bi wala nangam parce que ku yónni jinne daa fu ko neex lay aw waaye boo yónnee yàlla nag mm-hmm. yàlla mu nekk nga xam ne mooy sa lépp nga yaakaar ko nga ne ko yàlla laa ko wékk mm-hmm. bu bu làmbee dina ko daj kon man gëwma ay joxe na garab boo si defee lii du àgg wala rabbee ko dëpp wala GP bi nangam wala bu bu ko GP bi réerlee sax nga ne ah nga def ko lay. nga def ko lay waaw par exemple nga ne non xam naa ba egsi parce que faa nga def lii. sarab bi yow man gaw ma ko. Mm-hmm. xaw ma nag ñeneen daal waaye daal yaakaar naa ne. Mm-hmm. nit ki moom boo ko xoolee ay mbiram. Mm-hmm. yaakaar naa ne boo nekk rab bi day dañ. dara mënu koo teyaat. a dañ. kon yow di nga fajal nit rab ba mu wax la yeneen soxla yu bokkut rab. waaw bëri na nag bëri na si ñoo xam ne daal yaakaar naa ne seeq nañ si ay rab. buñ may waxaat affaire leneen lañ may wax daal. wàllu buntu seen wërsëg ak nangam. parce que nag lu bokk si yow di la tëj. di la yàqal nga xëy rek dindi ko mm-hmm. ah da ngay jàpp ne beesaat nga rek parce que boo tabaxee sa kër ba toj ko ah da nga koy tabaxaat nag mm-hmm. ndax lépp mën na daanuloo mais boo boo ñëwee rek dëkk fa te tabaxoo ko tamit doo am kër mm-hmm. mais sëriñ si parfois seen fit day ëpp wala fit yu day manqué wala damay gis euh, ay ci digg dëkk bi. Mhm. wala place yi nit ñi gën a soxla. Mhm. ñu gis fa kër gu yànji mel ni mu war a mel kër gu baax daal ci gàttal position boo xam ne que baax na. Mhm. mais doo ko gis dugg ca duñ ko toj duñ defaraat du jar. du kii ñu ne kër gi dafa am lu fi nekk. ñu ragal ko saaru kër yooyu ku la ko may nga jël de ah. ku ma ko may de dinaa ko jël. Euh. waaw bu ma xoolee ba xam sama wërsëg la. waaw noonu du ah bu la xasee may nga jël. waaw mais waaw léegi ndax bu ma xoolee di ko kon ku la mayoon palais jóg ak ni la pour nga defar ko dëkk fa da nga dem. bu dee sama wërsëg fa de dinaa dinaa dëkk <laughs> waaye yaakaar naa ne nag euh, comme li ñuy wax. Uh-huh. daal xam lépp lu ma mébét. Mm-hmm. bu ma ko dénkee sama yàlla bu ma mm-hmm. ma xoolee dinaa ko ñemee. yow mm-hmm. nga xool lépp loo gis daal buntu la. xam nga dañ ne àdduna yàlla doylu rek moo fi am. te dafay maye. waaye may jëlul leen jox kenn. da ko am am na kër mën nga fay bañ a dëkk mm. yow nga dëkk fa mm. am na tey kër nga xam ne bu ma fa dëkkoon sama rab dina fa dëkku mm. nga ne ah kii mën naa fay dëkk mais am na keneen koo xam ne mënu faa dëkk waaye lépp luñ ma yére daal ma may ma ko dinaa ko jël ma bu soobee yàlla bu ma fay dëkk bu dee benn fan sax laa fay dëkk dinaa fa dëkk insha allah rabbi insha allah <coughs> jërëjëf euh, sëñ Ass Birane Seck léegi nag comme xeetu jinne rab ak saytaane mm-hmm. bu doon am nga ñaan yooyu joxe pour ku ci bëgg a Mm-hmm. ak boppam yan nga koy wax. Mm-hmm. sëriñu pirate kat yi ngeen jël bu baax baax ci Tektal TV. Mm-hmm. numéro yaa ngi noonu ci écran bi. waaw fa tabarakallah euh, maa ngi wax ne te képp ku nga xam ne. am na rab. wala nga jàpp ne seytaane. wala nga jàpp ne jinne la. da ngay bind 15 alam nasara lakka. da ngay bind 15 alam nasara. ba jeex saar bi jeex. saar bi jeex. nga daal di bind 15 li ilaa fi xoraysin. 15 li ilaa fi xoraysin. ba mënee am xobi dém xobi dem. si dem nga wital ko sa bopp maanaam bu ko fekk mu wadd mm-hmm. nga wital ko sa bopp mm-hmm. boo ko weeree quinze xob nga si wut quinze xob boo ko jënd looy wax bismillahi rahmaani parce que lépp lu ànd ak bismillah barke la barke la nga yéene si li nga bëgg mu jóge si yow mm-hmm. boo ko defee nga daal di si boole cent franc nga teg ko fenn ba mu wow bu mu nga bu mën nga ko def si gën nga dëbb ko ba mokk nga sotte ko si bàyyi si cent franc yi boo ko sangoo tamit quinze jours nga koy sangu Mm-hmm. même boo amee jour yoo fàtte sax baax na mais jàppal ne saa yi boo sangoo nga bind ko. boo xasee mat. Mm-hmm. nga jël cent franc yi booy dox si mbedd nga sànne ko càmmoñ. sànne maanaam mu aw sa mbagg yi. dootoo ko gestu nag. dootoo ko gestu mais bu soobee yàlla. Mm-hmm. yàlla dina la dimbale ba dootoo ko am am fajati bu la neexee sa jëru dem fenn. jëru dem allah rabbi. dégg ngeen ko kon ku bëgg a muccal sa bopp ci rab mi ngi noonu bu ma ci kenn laajaat nu mu demee duggal Tektal TV. nga xool seetaan ba mu jeex ko waxee noonu la ci Mm-hmm. léegi nag ñu ñëwul sëñ As Birane Seck ci beneen mbir muy wàllum korte mm-hmm. comme dëkk bi euh, da ngay seen nit yi iñaan nan am nan mm-hmm. jot soxor nan tal nan ko mën nan ko surtout ñuy nekk ci entreprise yi ci biir entreprise yi da ngay gis xeexante bi ba ñenn ñi dañuy tëdd xeexante bi ba ñenn ñi dañuy dof c'est xeexante bi ba ñenn ñi dañuy démissionné te duñ ko tey mel na kun xabtal xeet yooyu yëpp ak ñenn ñi tamit da nga jékki-jékki ñu ne diw mënatul jóg fa mu toog temps yi doxatul ak ñi nga xam ne ne anticiper màgget gi. Mm-hmm. doon xale bu ndaw liggéey yi mu koy sëf ba mu jékki-jékki mel na lu màgget ci entreprise yi. Mm-hmm. moo tax ku neex patron beegoo ku fa am njëriñ ak bàyyi leen xel Afrique la nekk di tubaab tubaab ba sànq rek loolu dal. Mm-hmm. teg sa bopp bu baax a baax ñëwoon ci ku bëgg mucc <coughs> xeet yooyu daal. Mm. xam nga kortu. Euh. dafa nekk loo xam ne comme bomb la rek. bomb la. moo gën a doy waar si yaramu doomu adama ndax tontu bu koy nit ñi di liggéey lu bon la mm. <coughs> dafa am foo koy boole am na su ñoo xam ne bu la waxee na la huit jours lay doon bu la si yàlla dimbalu bu huit jours matee nga faatu mm-hmm. bëri na si ñoo xam ne mm. <coughs> da leen dal mm-hmm. soit bu ne la quinze jours la noonu lay doon parce que bu koy nit di liggéey mm-hmm. app ba rek lay doon am na ñuy tëdd lu mat ay at fu nañu buñ fa demee ñu naan rab la ñu naan nangam nangam la fekk dañ laa sànni kortu parce que buñ la ko sànnee app buñ la ko mën a jox rek si lay si lay mën a doon kon <coughs> abonné leen Tektal TV ngeen abonné Tektal TV bés fu rouge bés cloche bi émission bu am ñëw ngeen am ko waxuñu nag abonné force la kum neex nga abonné kum neex bul abonné Tektal TV ñun njëriñ lan yor di ko indi kum neex boo bindee Tektal TV rek gis ñu nga seetaan ba mu jeex nekkuñu fii bu seet def ay titre yu rëy wax lu dëgg dugal la ci sëriñ buy dugg ci mbërum làmb yi bëgg loolu suñu yoon nekkuñ ci. ak mhm. mm. su ko defee. Mm-hmm. buñ la ko sànnee nag. Mm-hmm. te yàlla dimbalu la nga am ku ko mën a dindi. Mm-hmm. Euh, bu ko yàlla la si yàlla dimbalu dëgg rek da ngay génn àdduna. parce nekk na liggéey boo xam ne baaxul. am na ñu nekk si bureau. danañ koy sànni mën nañoo xëy bu ñu waree liggéey dem dem tëdd nalaw. dem tëdd nalaw. sama yaram dafa diis nangam fekk dañ la koo sànni. dañ la koo sànni. am na ñoo xam ne bu leen ko sànnee boo ñëwee ba tiim sa bureau da mm-hmm. ngay départ. ngay jaawale ba xam liggéey la wala du liggéey. man mm-hmm. sama bopp bu ma demee du ma tiim fekk dañ la koo def. Mm-hmm. te nag dafay am nu bëri nu muy def si façon. parce que bu fekkee am na. day dañ naan bu ñu ko defee lu bon nga gis nit bu ñëwee gis biiram bi di newi. nga xam ne yow boo sëggee sax da nga gis sa bopp comme seetu. parce que buñ la ko buñ bu dee bu fas la. ñun mm-hmm. am na ñuy liggéey lu bon. bu mën nañ ko def fas. Mm-hmm. bu dee fas la boo amul sens xam nga loo xëcc nii ba xëcc. Mm-hmm. pour nga am sens pour dindi ko dafay jafe. dafay jafe mu ngi mel tey soo amul koo dajal ku la ko mën a dindil nag. dafay nekk loo xam ne lu doy war la. waaye képp koo xam ne sentir nga sa yaram. ñu sànni la kortu. wala ñu sànni la nawtal hmm. wala ñu xabtal la bu soobee yàlla bu bu ma ñëwee ba xool la dinaa ko xam te bu ma waxee dinaa ko dindi bu sooba yàlla ko dindi ak korte bu la mën a sànni si kat yàlla dinaa ko dindi hmm. te duma ko def nag man hmm. man naa ko nag ndax xam nga dana xam-xam lépp jàng la waaye bu nit ñëw mukk na ma sànni ma nangam duma ko def insha allah yow daal dindi nga man moom waaw dafa am nga dafa am noo xam ne bu fekkee bu kaw la mm-hmm. moom moom boo ko dindee rek day demaat fee si moom ki ko defoon moom da koy dal mm-hmm. mais bu fekkee bu suuf la mm-hmm. bu àggul si biir parce que lu ñu ñëw fii rek mooy am problème mais bu dee suuf la dina mën a wàccaat suuf la jëm waaw mais bu fekkee kaw la jëm moom day ko si ku ko def moom léegi boo ne ku ko def ban différence ngay def entre kortu euh, maanaam xam sëñ bi du tëb rek lu ci di kortu mhm. euh, maanaam dañ koy sant mhm. buñ ko ko santee mhm. yaw boo delloo kortu bi ci sëriñ bi lay dellu wala ca ka ko def lu lay dellu waa xam nga tey ku toog ku wax la nga jël turam mu ne diw laa bëgg nga def nangam xam nga am nga turam léegi booy booy def kooku kooku lay dem ci kooku lay dem lay dem parce que moo ko def waaw waaw moo tax ma ne sëñ bi lay dem quoi waaw sëñ bi ko def di ah yaakaar naa ko de mais kasan sëñ bi tamit ñun dafa mel ne que leen def kortu leen gën a soxla sax sëñ bi ah, mu man daal xam maa ne. Hmm. képp ko ko def doomu aadama moom dina këpp ci kawam. dina këpp ci kawam. waaw muy hmm. muy ka ànd ak moom muy sëriñ ba muy ko mën a doon daal moom delloo daal lay doon moom. man li ma jaaxal. Hmm. da ngay seen parfois euh, ci wàllum kort foofu laa joxe séance ko bii nag du séance tubaab bi sama séance bopp la. waaw te man sama bos defe naa moo gën a kawe bu tubaab bi sax. parce que jékki na frontière yi fi may waxee. da ngay gis sëriñ boo xam ne que problème bi 2 millions mën na ko nga séen koo xam dañ ko korte korte bi bu ci ku ko ci laaj 4 millions mu jox la ko. Mhm. sëñ bi kon mën naa fexe ba korte bi am. Mhm. ah. Mhm. moom mën naa def nit korte. ba kee mu jaral ko 4 millions mu deñ. mais jëmu sëñ bi moom 2 euh, millions tegu. loolu day wane xam-xam bu bon moom amul njëriñ nga xanaa wala. waaw ah, xam nga ko imaginer quoi. xam nga tey comme li nga wax rek gis nga lu bon moom daa amul njëriñ. Mm. te yaakaar naa lu bon moom. Mm. képp ku koy def tamit doo am résultat bu baax. te li nga est-ce que dégg ngeen bi ma waxee. Mhm. Ousseynou li dégg ngeen fu ma wax bu baax. Mhm. pour ngeen comprendre science bu dee sëriñ bi mën naa def lu bon. ci mhm. gàttal moom 4 millions mën na ko të. te korte yomb ko te kii korte am moom pare na pour def ci lu 4 millions pour mu deñ léegi sëriñ yi bu bu bu ñu bon ñi bu nandoon loolu moom ba duñ def nit korte bari di ko dindiwaat. waaw <laughs> hmm? ah, waaw mais xam nga comme li nga wax ne hmm. li nga wax moom lu leer nañu la. lu leen baax daal day firndeel lu bon daal baaxul man daal lu bon daal maanaam parce que loolu ñuy def ci lu bon buñ ko jëfoon ci lu baax mën am léegi looy jël un million ko yàq si ngir mu yàq nit hmm. soo ko defoon sa bopp yooyu euh, balaa déwén nga avancé nga avancé ndax la nga koy sànni tôt tard day dañ su benn benn mu génn hmm. nga perte sa un hmm. beneen yow te yàgg-yàgg di nga dee te keneen ku la sonal ngay bañ la waaw parce que da nga gis nit nga sànni nit liggéey mu dal ko muy koortu mu génn àdduna jàppal ne bis dana ñëw dina la dal yow. dina mu neex la mu naqari la man nga nekk ci résultat nag. Mm-hmm. jàpp na sa sëriñ ay na. Mm-hmm. mais bis dina ñëw la lay dal. Mm-hmm. doo ko xam sax kon def lu bon amul njariñ. ko ngeen bàyyi ko xel def lu baax léeg nga gis benn paa paa bi absenté bu baax a baax baax di absenté euh, te kenn defu ko dal li koy waral léeg am na yu bon yooyu def sa àddina mu dajaloo nga dem ba soxla yërmande. amatoo kattan amatoo man-man ña nga doon yàq-yàq nga leen ñu jóge fi mënatoo Euh, gàcce jàpp la mënoo tax taxaw kenn di wax li nga def mu xam ne nag yàllaa ngi la doon gis te mi ngi fi ba léegi yàlla mi la doon gis mi ngi lay tiim def nga sa jëf ju bon weesu na nga toog di rëccu nag gën a jege dee xamoo foo jëm ak moom kon def lu baax ba xëy moo gën def lu bon ba xëy kon bàyyi leen xel tey rafetal xol yi bu baax ak yéene bu baax a baax. Mm. léegi nag sëñ Asminaan Seck. Mm. léegi kenn kortul nag bokkut ak kun kort ba pare. Mm-hmm. mais ki bëgg a mucc ci ñu ko. mu mm-hmm. bañ jàpp kooku man nga ci dara. waaw kooku xam nga boo nekk si bërëb bu mag moom. Mm. wala nga nekk si jamono si même booy xëy rek di yeewu ko jug. Mm. war ngaa fexe sa bopp ba dund la sànni koot. Mm. ndax nee naa koot moom bomb la rek. bomb la te nit ñi moom fu nekk lu bon lañuy njëkk di def. di sànni ni yéenatuñ sa morom jàmm. mais mën nga fexe ba def ku la sànni dara lu bon muy kootu muy feebar lu mu doon mu dellu si kawam. mu dellu si kawam. mooy ma am beleen rek. Hmm, daan na ko wax si bi nga xam ne nit dalay jëm si yow dara ba sonn du man si yow dara hmm. na tibb sa tànk na yóbbu sa tur fu ko neex mais lu mu dóor day këppaat si kawam hmm. kooku moom képp ku si am loo soxla bu soobee yàlla bu ñu jëflantee moom liggéey moom dootu la laal bu neexee yàlla liggéey dootu la laal incha allah rabbi macha allah jërëjëf euh, sëñ As euh, Birane Seck di li mu wax ci ku bëgg a mucc ci ñu korte la ba bu la kortee du jàll ak kun korte ba pare moom mu dindi ko ba ba nga am ak ku bëgg sa njaboot nga aar leen ci kort ak yooyu yëpp nee na boo ñëwee di ci am lu kawe njort numéro yaa ngi ci écran bu baax a baax. Mhm. léegi nag mu des sëñ Aspirane Seck beneen bu bëgg a kort. Mhm. muy liggéey. Mhm. comme kun liggéey. ba munul am liggéey. liggéey ba nga xam ne que ku koy liggéeyal du man a ne fa yow. kun liggéey ba nga xam ne que moom ci boppam daan dèjà dindi li ci boppam rek doy na ko liggéey. waaw ku bëgg mucc ñu liggéey la parce que. am na ku nekk euh, Canada parce que bu ma nee liggéey. Mhm. dafay àgg ci wujje. bàyyi leen xel bu baax na côté bii wujje bii fi ngeen ko yóbbu àggu fa am na ñoo xam ne que wujje mhm. pour doomu diw na tekki. Mhm. doomu diw bu mu tekki. doomu diw bu ma raw mel na course. ah, ah? ma jóg peex ak mbay peex ah. course course ñu àddina bi loo man di wut di nga gis ku la ko ëppale. boo fi jaay rafet am na ku la dàq boo fi jaay njool am na ku la sut gàtt am na koo sut ñuul am na koo gën a ñuul xees am na ku la gën a xees ëpp am na ku la rëy ëpp xaalis noonu lu mu mën di doon kon mënoo fee fexe ci àddina bi bu la neexee nag nga concours bon moom bon moom mën ngaa dem ba bokk ci ñi gën a bon moom mais baax fexe ba bokk ci ñi gën a baax moo yombul te kon foofu la course bi nekk bu baax nag du question am alal doom ju alal déedéet koo xam ne que li yàllay digle li nga mën yaa ngi koy def li nga mënul yaa ngi jëm li yàlla tere li nga mën yaa ngi koy def li nga mënul yaa ngi jëm ba pare jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi mm-hmm. mais xëccoo bi fi am mm-hmm. ba ci côté wujju mm-hmm. ci doomu diw ak doomu diw dafay dem ba ci léeg sax ñaar mën nañ bokk ndey ak baay nekk si jàmm bokk seen alal bokk seen lépp mais fi problème bi nekk mooy bu ku ne tekkee jabar ku ne yor sa jabar jarab jabar yooyu seen i doom doom yooyu seen i sët problème ba déclenché nag mm-hmm. wujjee commencé mm-hmm. wujjee googu day am ba bu diw raw diw bu diw la diw bu diw kii diw lu kii am rek ñu ne noonu mm-hmm. beneen bi tamit wujjee bu amee mu ñaaw ku ci bokk fii di dox lu rafet tam ñu jàpp ko ab saytaane dafa metti quoi moo tax xeet boobu laa bëgg nag euh, ku ci bëgg mucc ci xeetu liggéey xeet boobu ku ci bëgg mucc waaw kun liggéey kun liggéey da ngay fexe ba dindi ko dindi ko ba mu set wecc mais li nga si wax laay gën a leeral xam nga Euh, wujje bokk wërsëg la rek. bokk wërsëg la waaye nit ñi gëmuñ ko. Mm-hmm. te da gis koo xam ne day day dem si sëriñ. Mm-hmm. jël turu wuj doomu jëm def ko loo xam ne tey. Mm-hmm. ngir du tekki. ngir du tekki gis nit sa ñëw toog wax ak yow yow sëriñ bu ñëw na la man sama euh, jëkkër bëgg ma mu am wujju. bu ko defee soo ne ko lii ak lii sax. li muy njëkk ah sa jëkkër bëggoo mu am jabar ah, waaw bu ko defee day mel ni. su waxee loolu. boo ne ko sax loolu duma ko liggéey daf lay jàppee ne daanaka xamoo dara wala nangam fekk nit ki euh, bu la ñëwee ba si yow mm. wax la lu bon jéem mm. waxtaan ak moom jéem euh, gën koo dalal xelam mm. waaye jamono ji muy jigéen ñi waaw ak góor ñëpp laa ku si bëgg yori soxna da sa bopp jóg sa bopp ku bëgg sa soxna tamit bu gëmul yàlla. Mm. di ngeen sonn loolu waaye na fexe fatt sa yaram ba kenn du man si yow dara muy góor. muy góor muy jigéen. ñëpp dañu ñàkk seen mbir daal. ñàkk sa bopp daal ba ku la liggéey. Mm. mu këpp si kawam. parce que mm. lu bon mu amul njariñ. amul njariñ. Mm-hmm. kon daal euh, liggéey liggéey xeetu liggéey si ñu liggéey nan lay mel ba ku liggéey mu xam ne moom dañu ko liggéey. waaw xam nga am na ñoo xam ne dañuy xëy di liggéey. Mm-hmm. yor seen alal nit liggéey dafa bëri façon mën na laa liggéey ba loo yor. Mm-hmm. Euh, jaxase am na ñoo xam ne mosu ñoo laal bitalu sàngara mais dañuy dem ba si yàgg ñooy fanaan sa baar yi. ñooy fanaan ci naan kii pourtant baax naa fekk dañ ko xool liggéey ba yóbbu ko si côté boobu. Mm-hmm. xam nga liggéey moom nun la yóbbu nag nan lii la. Mm-hmm. am na si ñoo xam ne tey dañuy jékki-jékki yor alal. Mm-hmm. daa ànd ak seen waajur. nit baa nga gëm ne liggéey am na am na ñoo xam ne tey benn dërëm bu ñu takkee soxna duñ defal dara seen yaay. duñ defal dara seen yaay. te imagine na sa yaay yor la ba daru dara ba nga dem ba màgg. nga tiim sa yaay di ko jéppi. di ko jéppi nga loolu moom ah, loolu liggéey rek la doon. te jigéen ñi ñu bàyyi si xel. Mm-hmm. parce que dañ koy def. te loolu bis boo dee yàlla dina la mbugal. dina moo tax nag yàlla léegi yéen xaaratu nit ki dee fii ci àddina lay commencé mbugal yi sax. Mm-hmm. parce que si biir loolu. Mm-hmm. bu ko defee nag nga tiim sa bu la ñaanee doo ko defal. na maire bi dafa soof wala nangam. fekk sa soxna moom lu mu bëgg tey bu noonu oto sax nga dem jëlal ko woon fekk du du mbëggeel yéen a am na mm. waaye yenn yi boo koy def xamal na sax yow boo ko amee sax du la jik mm. mooy waral nag nga def nit da liggéey dara ba jari ba ba am ko mm. te yow doo ko jariñoo te doo ko jariñoo côté boobu tamit ngeen bàyyi xel mm-hmm. parfois euh, miinu ma biir kër yi nu muy demee mais njëkke la tudd dëgg naa njëkke mm-hmm. mooy magu ku góor ki mm-hmm. wala rakkam ma maanaam magu ko góor ki wala rakk muy soit muy góor wala jigéen ñooñ tamit parfois dinañ indi problème di jaxase seen frère bi takk jabar ak seen yaay di ñëw defal na diwlee defal gis nga nit wax dëgg yàlla dafa am laneen loo war a tal lu bokkut ak ay détail gis nga kër yi ñi ñàkk jot bu buñ fi ñekkee rek jàmm am kenn ku ne boo talee loo am ak sa diine billaay minute booy yàq am na fu mu xaj minute boo yàq boo fi taree ayatu kursi mu jeex bu ayatu kursi bi jeexee mu minute bi des dolli beneen ayatu kursi mm-hmm. wala nga dolli fa xul wala ahad wala innaa tey naakal nga am aw yiw mm-hmm. mu yokk mm-hmm. moo gën nga nekk di jaxasee kër di indi di lijjanti kol gi nii la mel ah dàll yi nii la mel dem na lii bi muy dem tàggu la indi na fii nangam nangam kii tamit di war ne nangam defal na lii maire bi bàyyi nañ kii nëbbu doon gis nga àddina nit bu ne bu réglé boppam rek fexe ba du lëjal leneen nag jàmm am mais problème bi saayir yi sax yomb naa lijjanti mais dem di liggéeyi nag am jot gi foofu la nekk nag. Mm-hmm. dem di liggéeyi nit pour man xalaat bu gàtt waru fa àgg. sëriñ bu am jot sëriñ bu bon tamit. Mm-hmm. ñàkk orma ci boppam. Mm-hmm. moom la nit war a sañ a taxaw naan ko liggéeyal. na ko liggéeyal mu def waaw sëriñ moom bu sàggane ba nu àggale foofu rek mooy yob na la moom. boobu kay war ngaa xool sa bopp. war nga xoolaat sa kon maa ngi gërëm sëriñ si liggéey nit ñi te duñu am résultat. ñooñu moom dañ leen a mat a may maanaam lekk xaalisu kiy liggéeyu nit nga lekk ko pare bañ am résultat nga xam waa ji amul lenn lu mu mën a wax nag da ngay dégg ko naan sëñ bi xamul dara de ba ne lu mu a xam nga tey sëriñ boo fa demee indi lu set rek da ngay ñeme parce que boo demee di ñaan lu kaaraange protection sa njaboot ubbeeku bàyyi na ay jaay muy jar xet googu ku la gis ci sëriñ bu ko nëbbut mais gis fenn kër sëriñ nëbbutu ko métti gi léeg-léeg la nga fay indi lay doon kon ngeen bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax a baax ci Tektal TV. en mhm. as Birane mhm. Seck borom mhm. leeram ci biir Tektal ah. kon daal ku ñëw di nga ko jàppale ci wàllum liggéey mu mucc bu baax a baax a baax a baax. ku yore place bu soobee yàlla dinañ si def ñaan. ba yàlla yombal ko lépp. macha allah ba kenn du la si sànni lu bon. ba kenn du la sànni liggéey bu mu mën a doon. bu la ko nit defee bii xaddi. bul xaddi bu ñu toogee dinañ ko dindi ba mu set rek bu neex yàlla. dinañ ko dindi ba kon euh, mitaan tegtal euh, maa ngi nuyu sama benn xarit bu ñuy wax oustaz Mor Jaxate euh, bàjjan Fat Diop yaay nijaay Moussa Jaxate di waajuram yàlla na yàlla yokk leeram ak nijaay Modou ci Allemagne tamit nijaay Modou waa Ndemeen ak bàjjan Fat Diop Mor Ñang Jaxate Babacar Jaxate Fat Jaxate ak nijaay Mor Jaxate ca Sika Mbaaw ak Fat Jaxate ak Marème Jaxate Marème Jaxate nag war na am bayra bu baax a baax ca Tiwaawan soxna si Aydara Diop ngeen ñaanal ko mu am bayra bu baax Marème Jaxate ak euh, doomam ay Aïssa ak euh, soxna Diop Aïssa Diop ak soxna Diop ak Yoro Diop ak waa kër Pape Taxa ñëpp euh, sëñ Asbirane Seck mhm. léegi xaar ma joxe waat numéro bi ah. gars yi gën ko jël bu baax a baax defal 78 bindal maire boobu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di neexul ki wax ci salle bi mu noppi ki dox ci mbedd mu dugg ci biir tegtal mooy daw 78 147 04 83 78 147 04 83 beneen am na whatsapp de ah. bu ko defal audio buy diire 10 minutes defal audio rek muy tontu bu yéexee tontu ko dolli beneen ci kawam ah 76 461 02 92 76 461 02 92 92 9 ak 2 la pour ku déggul daañu ah. bu dee nag koo jafee jot na këram day am problème mu réseau ci Ouest Foire euh, ci case tout petit bi nga woote ci fixe bi. 33 824 72 09 33 824 72 09 7 ak 2 euh, sëñ Asbirane Seck borom leeral jóge ci dëkk yu ñànge Casamance euh, jóge ci dëkk bu sell ba Diourbel nekk ci dëkk bu doy waar ba Ouest Foire mi ne ko ba mu dëgër bopp ba mu dëgër ba mu dëgër képp ku dugg Ouest Foire di seetub sëriñ rek sëñ Asbirane Seck bii lay seet borom leeral mm-hmm. sëñ Asbiraan Seck wàllum seet nag boo nu ci doon ñëwaat mm-hmm. euh, comme seet moom danga sawar ci wax ci mm-hmm. ndax wóolu sa bopp ci seet tam na ustaas yoo xam d'accorduñ ci seet yow seet ban nga yor woo ma seet bi naan yaa ngi lijjanti ay mbir yaa ngi yaakaar mooy tas yaa ngi jàpp yoon ku góor kii kan la ku ñuul kii kan la ñiy jaxase kër yi seet bu wóoma làmbatu seet bu ba ci jàpp sax koo xam ne dañ sàcc nga sama mbiram yëpp nga ko sàcc ba nu mel fa tabarakallah seex comme li far di wax di seet mooy sëñ Asbirane Seck boroom leeral. Hmm. Euh, defe naa ne leeral moom mooy leeral pour. leer la waaw leeral pour lu lëndam <laughs> hmm. la. macha te yaakaar naa comme li may wax rek yàlla may nañu ko. Hmm. ba buñ si yemoon. fépp fu ñu nit di woo wala lépp lu ñu soxla si ñun. bu ñu yemee foofu rek bu soobee yàlla dinga nga kontaan. macha allah euh, liñ si yàlla may nag bëri na. <coughs> ba mën ñoo toog sax di ko. nettali fii dafay fees. waaye képp ku ñu xam ne xam nañ turam ak santam. am na si lépp loo xam ne boo ñu ko waxee rek bu soobee yàlla bu ñu si gëstoo dina leer nañ mooy suñu féete moom la ñu am ndax nit ki la yàlla may da koy fierté mm-hmm. euh, Poutine xam nga ak xam sant bi nga seetal ay mbiram boo xam moom fan la jëm ak àdduna bi dina indeeti euh, jàmm wala dina indeeti problème wala dootu ko indi jàmm ci àdduna bi waaw xanaa li nañ ñaan yàlla rek yàlla def réew am yow doo seet en direct nii jàkkaarloo di wax mm-hmm. waaw mooy xamul ma wax rek xam nga daana la ko wax mm-hmm. Ah, foofu dafa laaj fàtte naa da nga jël turu yaay ak mm. papa waaw wala turu yaay ak turam quoi Poutine amoo turu yaayam foofu tamit yal na fa yàlla def jàmm amiin te loolu nekk fa tamit yal na ko yàlla fay Palestine ñëpp am Palestine ak Ukraine mm-hmm. ba lépp dañ dal waaye comme li may wax rek mooy nit bu la joxee turam santam mm-hmm. dafa naa ne boo ko xoolee di nga si gis lu bari te lépp lu nga gis rek nga wax ko nga wax kooku moom mooy sama fayda daal seet mooy sa fayda waaw foofu du ma fa mën a seet daal mooy loolu kon daal kuy dugg ci sëy nee na boo ñëwee incha allah kuy jënd terrain kuy tuxu yooyu yëpp dañ ko war a seet kuy takk soxna. Mhm. yooyu yëpp loolu war a seet la mhm. Mhm. parce que lu mel na xam nga tey nit bala ngaa dugg si dara war nga koo xool. dama la koy wax mooy la bu ñu gëmee ne. nit ki da nga booy dem hôpital. boo feebaree faaw ñu xool la mën a xam lan moo nekk si yow. kon war nañu gëm tey. nit ki bu ñëwee toog boo ko xoolee yàlla am lu mu la wan. léegi bu la doon laaj ne la coupe du monde bi euh, date bi ñu ko jàpp du du du sensé day sensé mën nga seet loolu waaw mais comme lu ma ko dem VAR. waaw du question VAR sax xam nga li nga wax rek ne naa la doomu aadama yàlla rek moo du juum. Mm-hmm. mais ku yàlla bind rek juum dana am. juum dina am te dangay ngay sabablu. Mm-hmm. yàlla mooy mottali. yàlla mooy mottali xam nga tey coupe du monde bi mën naa wax ne du am. Mm-hmm. parce que am na. waaw dañuy ñaar yàlla mu faju mais bu lépp am bu nekkoon si ay jafe-jafe dana dana mm-hmm. kon dañuy ñaar yàlla daal no côté novembre bi laa dama bëgg wax ne mm-hmm. foofu moom dina dara du ko sens waaw xam nga comme li ma wax man yëgu moon na sax novembre la yëgu ko mm-hmm. ah, déjà <laughs> comme du ma ko bàyyi xel daal <laughs> euh. ah, waaye daal lu am solo rek mooy ah, yal na yàlla def jàmm. yal na yàlla def jàmm waaw. lañ tax ñu yitteel ñu daal. Mm-hmm. ku ñu ko si wax. Mm-hmm. bu ñu si xoolee lañ si man dina dina la ko wax. yéen seetkat yi loolu yi nga xam ne tas na ni kër te yëguñu ko jékki-jékki moytul diw. Mm-hmm. moytul diw defal nangam façon yu mel noonu maanaam léeg-léeg mën na seete ci seen euh, <coughs> làmb yi rek parce que tamit. nit sa métier nit waru koo fooyee ba yem ci yow. maanaam am na seetkat yooyu li ñuy def man nii defe naa man naa ko. parce que tey boo xoolee nga analyser rek Sénégal Dakar kër goo dem pratiquement lu ci ëpp taw ba Mohamed lay tudd. Mhm. ci gàttal ñu ñëw rek nga ne ko ana Mohamed kër gu amul Mohamed ci ku dëkk Dakar. Mhm. parfois yombul. Mhm. est-ce que comprendre wax. xam naa beneen diine bi waxuma quoi donc parce que ñooñu xam nañ seen i tur ak yu mel noonu. beneen bi xale bu góor boo gis ah. reefam moom xam nga ko. reefam moom saay yi bu sottee mooy ëppale Neymar ci lépp nag. léegi kon xam nga lim bëgg. léegi yaa ngi jàpp yoon. ñëpp saay boo jógee fii dem boutique ba sax jàpp nga yoon. ku ñuul ki kan la. àdduna bi ñuul ak weex moo fi am waa Mexique xanaa dañ mel métis yooyu comme ma. boobu bu weesoo beneen bi euh, sa xol day tàng lu bari. sa waay milliardaires yi sax seen xol day tàng lu bari nit mënoo dëkke di bëgg. mënoo mhm. dëkk mer yaa ngi yaakaar muy tas mhm. saa yi am na kon kon looyu sotti joto ko yaa ngi lijjanti kayit photocopie carte d'identité sax lijjanti kayit la mhm. wala di loué ci agence bu bees euh, comme <laughs> agence bu Pape Mor Jaxate wala yu mel noonu mu lay wutal foo loué yu mel noonu foofu faaw mu jaar ci kayit est-ce que comprendre wax léegi ku jigéen ki ñu ne ko yow say soppe góor la ku góor ki ñu ne ko yow jigéen ñi ñoo la bëgg seetlul am na ci yoo xam ne que boo boo xel dëgg waxu nit mën naa ko. mais seetu yomb yooyu laa bëggul moo tax yenn seetkat yi waaral ma leen nga su continuer. waaw foofu tamit comme li may wax rek. Hmm. Euh, li nga yor. Hmm. bu ko caaxaanee. Hmm. nit ñi tamit doful. doful yaakaar naa ne ku yëkkat sa xaalis dox nit. waaw daf la neex jamono ji. ndax nit bu fekkee dafa ñëw jox la turam santam. nga wax xam ne nekkul si moom. la fa ba wuti leneen. dina li nga wax yomb na. Mm-hmm. ah waaye man daal yaakaar naa ne seet daal yombalu ma ko. yombaloo ko daal. man sama bopp laa xam. Mm-hmm. te tamit bëri na ñoo xam ne jëflante nañ. Mm-hmm. Ah, bu ñu si gisul loo xam ne wax naa leen ko nañ ma ko wax. am lu may wax mais daal nit moom. dëggu dafa neex. dëggu dafa neex. parce que nee naa la da gis lii. am si yaakaar. mën na doon safaan. mën na safaan waaye suba yàlla mën na laa wanaat. suba ma yàlla mën na la waaw mais daal comme ni nga wax yomb yooyu daal. mooy yomb yooyu nekkoo ci. gars gars yi ma sëñ As Birane Seck dañu ñëwal nag ci wàllum sport. Mhm. tey dama leen njëkkee basket. Mhm. basket basket comme mami d'enfant moom basket bi la bëgg moom moom basket lay seetaan ah. Mhm. nuyu naa nuyu Fatou ak Dieng boog yëpp ah. Euh, basket ku bëgg di dugal pañe yu bari. loo ko mënal. waaw la ma mënal mel ne Jordan quoi. la ma mënal. jour mm-hmm. yi rek laa ko man waaw te wax naa la nag xam nga nit day takk zemark zemark di dugal bi yu bëri ah zemark parce que am na nit da nga koy sangu ah dugal la rek di dugal la rek waaw ah, du gëm nga ne nit takk na dara dóor nit mu daanu mm-hmm. na nit moom mën nañ koo jox dara loxo bi lem la mu dugg mm-hmm. d'accord léegi tëj say camp ba peñe bi du dugg nag ci basket mën na nekk waaw déggalu ma la rek am na am na day bëri de waaw <laughs> <laughs> wàññi peñe yi dugg bëri waaw xanaa ñu wàññi ko rek kon. ñu wàññi ko waaw dugg bi jafe daal. Mm-hmm, dugg bi jafe parce que gis nañ ne. américains yooyu bu ne parce que moom peñe yi day bari lool mais bu dee africains yi moom ay 47 18 ak ay xeet yooyu nga xam ne ñu góorgóorlu parce que dafa laaj score bu bari. ngay dugal lu bari bu ñu lay dugal lu yam sax mooy noonu ah. léegi nag ñëwal ci football. Mm-hmm. comme football mm-hmm. fii doo sax xale bu ñu koy jëndal balu basket defe naa basket yi seetaan xeex leen loolu la ngeen jóg wuti bayram. waaw balu football lañ koy jël ku football nag. dem ci club yu mag yi. waxuma nawe nawetaan ku fi nekkit mu am mu avancé ku nekk championnat Sénégal mu avancé. dem ci club yu mag yi te bañ a toog ban. waaw. waaw xam nga loolu mën ko dal. Mhm. xam nga loolu mooy ku nekk si ay difficulté nga dindi ko ba mu àgg fu sori. ba mu àgg ah, loolu mën nga ko. Mhm. yow mën ngaa jëlee nit nawetaan wala championnat Sénégal yóbbu ko ba mu àgg fu sori mën nga ko. ah duñu tur tur de. du tur tur waaye de am na ñu ñuy seetaan. Hmm. yaakaar naa ne fu ñu nekk léegi ak bu njëkk ba bokkut. Hmm? waaw loolu moom xam naa si dara. te dama wax ne nit nit ki tamit. Hmm. Euh, boo jëflanteeg ni dara. di ko wax dafa am rek daan daanaka li ngeen warlu. Euh, bokkut daal. te yow xam nga si dara parce que. ëpp lu may def. muy lu baax muy lu bon bu defee bu dee lu bon la di nga ne ma carrément man xam lay teral yi lay def lu ne waaw kon naan bu bu buy bu mu jëm kaw loolu la ko bi waxee ah. Mhm. xam loolu moo am solo. Mhm. waaye ah, kon daal ngeen bàyyi xel yéen ñiy fubal di rêvé. Mhm. nee na mën naa jëli nit nawetaan. yóbbu la ba nga dem ci club yu mag yi. mën naa jëli nit championnat Sénégal D2 wala d yóbbu la ci club yu mag ya mais nag du jël ab commerçant nag yóbbu ko ci ay Real ak Barça kii kii de ma kii de. da ngay mën a football ba pare xaw a nekk xale tuuti wàññi bi du ëpp ba pare sérieux am hygiène bu baax di lekk lu baax di nelaw heure nekk fenn nag moom mu jàppale ci yeneen di nga dem. mais boo nee mën naa yóbbu fii rek nga seen ku dem ba am 18 ans wax sama papa ma bal nga bëgg a jënd bal dugg naan da yaakaar fa bal moom. Mhm. retard na quoi Mbappé ngi fi nekk Mbappé bii di tooñ fii koñ ba Mbappé Kylian Mbass Mbappé Diop moom Mbappé la tudd de moom moom ak Mbappé bu mag <laughs> moom ak Mbappé bu nekk France xam nga loolu erreur la. dafa nekk <laughs> moo tax daal maanaam day man li muy man ba pare nangu entraîné. Mhm. nangoo sérieux. Mhm. te doy loola. Mhm. nga yóbbu ko fa sori. xam nga ku neex a ñaar mooy ku la gëm d' abord. ku la gëm. ku neex a ñaar mooy ku na ku nangu. ku nangu te dégg parce que àdduna lépp loo nekk. ngëm-ngëm moo lay àggale. xam nga tey ñun xamum ba xam suba danañ fekkam déet. mais dañu rafet njot na suba am danañ dem fee nag nangam nangam. kon rafet njot boobu ngay am nag. si la la yàlla dimbalee si li ngay am. boo nekkee. Ligue 1. Mm-hmm. war a rafet njot na di nga dem euh, par exemple Real. Mm-hmm. dafay am loo xam ne buñ la ko joxee da nga koy gëm. da nga def ko. Mm-hmm. nee naa la am na ñu nekkoon tey fii championnat euh, Sénégal. tey ñu ngi leen dégg fu sori. ñu ngi waaw te ba ñuy nekk fii daanaka kenn déggu leen. mais léegi fu ñu tudd tudd dana leen tudd. te day gën a sori rek incha allah te day gën a sori incha allah rabbi. incha allah kon nag mais kon euh, Sadio Mané loo ko digal mu toog Liverpool wala mu dem. mën avance. man de yaakaar naa ne mu toog foofu daal baax na. baax mu dem Real. <coughs> waaw waxu bëgg-bëgg comme sénégalais la mu nekk sénégalais. te yaakaar naa ne lu mu am foofu jox nañ ko gëdd bu mat mm. parce que defe naa ne Liverpool ku ko tudd di nga ko tudd foofu ak Salah. ak Salah defe naa ne kon nag ah bu dee loolu moo ko gënal mu toog foofu rek. Mm. waaye avance daal dañ koy ñaan yàlla. Mm. waaw loolu daal lañ koy ñaan gàllankoor mën ngaa fexe mu yónni entraîneur bi mu def loo xam ne bu ko defee du ko yónni muy dem <laughs> neex entraîneur football force. waaw xam nga nit moom bu la bëggee rek. loo ko wax loo ko teg mu nangul la. ndax tey nit da ngay gis dara nga kii bëgg naa lu lu ma ko wax mu def ko am na. Mm-hmm. waaw ngir bàyyi xel tamit lenn gis nga footballeur ak mbërum làmb am na jikko bu leen di bàkke ngir yàlla ngeen bàyyi ko xel parfois da ngay seen ku jàpp ci yéen sonn seeni mbir ba mbiree baax mbokk yi ñëw aaki moo ko ñu baax ñi ñi ci doon sonn ñu di leen woo ay suq ñoom duñu ay suq mm-hmm. ñooñu ginnaaw yàlla dañ bokk ci li la taxawal mm-hmm. beneen bi euh, boo demee ba la fa nekkoon nekkatu fa succès ba wàññeeku xaalis ba wàññeeku problème ba wàññeeku nga ñëwaat di jégglu mhm. nit ki bu la jéggee day fekk nag ba nga neexee àndal àndoog moom boo demee ba naqaree àndal bëgg ànd ak moom day metti am leen ngor ak kóllëre ci seen nit yi démb gis nga tey mhm. succès wut ko ba am ko moo gën a yomb am ko seere ko boo xasee am nag mhm. problème boobu moo gën a garaaw avant nga koy am ku weddi nag ah, laajal ñoom xese am na xese ba muy fubal Real ndax déggati ngeen xese <laughs> ah? Euh, nu mu tuddati am na joueur bu ñu doon wax euh, joueur yi am ay kii Pedretti ku jóg ñu ne futur Zidane ndax déggati ngeen ko gis nga succès boo ko teelee yëg da ngay teel a wàcc. Hmm. gis nga Cristiano ngi nii bis bu set bu dugalul nga yërëm ko. Hmm. te def na li mu war ba pare nit da ngay jàpp say nit. Hmm. dañ lay indil documentaire boo xam ne Chris lay indil ba mu nekkee xale yi ñu xam ne kii lii lay doon am nañ ngor ak kóllëre seen nit yi démb nit yu bees yi nag ku ci baax ngeen téye ku ab saytaane ngeen moytu Mm-hmm. waaw am na ñooñ dañ lay jaay nag mën nañ jaay ganaar ba du xëy fori mm-hmm. boo lëgee balaa midi mu tumuraanke teeleen seen nit yi démb yi te wàññi succès bu baax a baax mm-hmm. parce que man joueur bu man di ak ku ku soxla si yërëg yëpp man soxlawuma sa ñaan dërëm teel boo am teel man muy sëriñ seen ñëpp li may wax mooy sama soxla mbindeef mënu ko faj bii laay ko indi woon Neymar ak waa Paris ak transfert bi ak Chris ñoom ñëpp waa sa Manchester ñu dajale leen ko pour bëgg li ma man dinañ xam ne am na beneen soxla de dinañ wutiwaat indiwaat de. Mhm. te doy. Mhm. kon nit li nga koy jàppee mooy kóllëre. Mhm. te xawal ko ak nit dem ba mi ngi moom bu ba léegi. nit bu bees nag mën nga ko xam ku baax nga jàpp bu baax a baax. yooyu ñu jox ko conseil yi équipe nationale bi surtout rumeur xale jigéen yi jóg ku naan diw diw bu diw yu mel noonu. ba nga toog foofu tardé ngay def. crise kenn du ko gis ak jigéen yu mel noonu. bàyyi leen xel loolu. ngeen fa waaw. yow conseil bi ma jox joueur yi lu ko parce que du comme àgg nañ fenn fii. Mhm. équipe nationale dafa war a saturer. Mhm. Euh, ku fi bàyyeeku rek di ñàkk li nga mhm. kii. que ku xamul dara ñi nanguloon nationalité jël Sénégal yépp ñu ngi koy jël. kon affaire yi di gën a saturer. faaw nga fonk ñaanlu fonk farlu fonk téese bi. Mm. foofu tamit Cheikh dinaa fa sawar di wax. Mm. muy joueurs yi. waaw comme li may wax rek équipe nationale ku fi ñëw ren. Mm. boo góorgóorlu déwén doo fa ñëwaat. boo ñëw góorgóorlu déwén doo fa ñëwaat. doo fa ñëwaat. Ah, ah. góorgóorlu bi la la saayir la góorgóorlu ndax euh, nekk na équipe bu diis. bu diis. Sénégal moo mel noonu Afrique sax laay wax. Afrique mel noonu. na joueurs yoo xam ne mën nañoo football lool. Mm. ñëw def toj match yi. Mm. ba sa topp déggoo leen. lu ndaw mooy mooy ah, takk mbopp xam na li nga wax. takk takk mbopp. Mm. xam nga moom day day dem rek. day dem rek moo tax comme ni nga wax sànq nit ki la la démb. soo ko fàttee rek daan dafay. dafa am dafa am footballeur bu wax euh, Papin. Mm-hmm. dañ ko doon laaj naan ko ban mooy sa pili boobu bii bi dàq ci yow mu ne projet bii ñëw. Mm-hmm. Mm-hmm. après waxam ma jàngat ci leen mhm. léeg-léeg nga def émission ñu ne saa yi démb toj nga télé bi mhm. démb la mhm. loo fa lekkoon rees na bu la mbejoon mbéj ba jeex na bu la dóoroon deex na boo doon nelaw nelaw yi jeex na démb mooy doon bërki démb doon ëllëg doon ba dem déwén kon nañu bàyyi xel li weesu loo def lu mu rëy rëy ko te xool li ci sa kanam bu baax a baax footballeur yi ngeen jëlaale ko mbër yi ngeen jëlaale ko bu baax a baax am na mbër yoo xam bis ban daaneem ponkal lan mujjee daan ko am solo kon loolu yëpp euh, erreur la bu ñu war di bàyyi xel bu baax a baax daal gànna ngeen fas jom gis nga football Paris football euh, Bamba Dieng football Marseille. Sadio Mané football Liverpool. Mm. ah yii nii du sag bi xam nga lan la. foo nekk tey ëllëg nga fexe ko dépassé. Mm-hmm. waaw di euh, yóbbu duru Sénégal ci kaw rek yu mel noonu. Mm-hmm. nit war naa dépassé ñu naan i sa ay mu Messi doon añandoo mu mel ne miracle waaye yow nga mën a yónni Messi mu dem ah Bamba mm-hmm. yónni Payet mu dem Sadio Mané yónni euh, Kay nu du ma jël Salah sax Firmino kan moo fott foofu Van Dijk Van Dijk soof. ah waaye man kooku dafa ma xaw a soof quoi parce que man dama bëgg ñu gën la fonk ni ñu koy fonk. yooyu yëpp daal man nga ko. yooyu yëpp daal mën nañ ko. waaw mën ko daal mu ne naan. képp ku ñu mm. si jëflanteel. Mm. am nañ si yaakaar ne bu soobee yàlla dana la dégg fu ñuy dégg gars yi. comme ku mel ne mm. na ba Bamba Dieng bu a jël meilleur buteur France comme gànn moom dugal du métier ko yàlla may daal ñu ñaanal ko. waaye comme li ñu wax rek. mën na nekk daal mën nga koo fexe mu jël championnat de France meilleur buteur waaw mën na nekk. mën na nekk te gëm nañ ko incha allah rabbi. incha allah incha allah yàlla def. Mhm. te loolu lu a nekk la. lu mën a nekk la. waaw nit moom bu ñu jëflantee. Mhm. yaakaar naa ne foo nekk daal bu dee <clears throat> mébiteel nga bëgg a jël di nga ko jël incha allah rabbi. kon dégg nga. incha allah doo ma jël engagement Bamba Dieng jël mébiteel kii France. Mm. Gana jël meilleur joueur Ismaïla Sarr jël meilleur joueur fële. Angleterre Angleterre. Mhm. Euh, kan moo faneen Espagne ka fa nekk. Euh, am na ku nekk club boobu noonu. Pathé Ciss Pathé. Ciss Pathé Ciss ah. incha dem Real ah. incha allah dem Real. donc euh, ñu àggal ko fii léegi ci tegtal Pathé Ciss nga dem Real ah. non dogg naa ko dina dem bu soob yàlla kooku moom. Mm-hmm. même mu dem Barça dem club yu yi. maa ngi koy ñaan yàlla bu baax di ko nuyu bu baax. di euh, mm-hmm. ku am ngor la. ku am ngor la. maanaam ku fàttali ku démb la. Mm-hmm. ku doyloo yàlla la. ku doyloo yàlla. yal na ko yàlla gën a àggale. amiin ñun ñëpp ku lim waaye nit moom. dina am fu ñu féete yow ragal fii te day xañ a wërsëg. Patachis moom lu mu def man damaa gis ma tudd gànna nga ne tekk wax dem ma tudd Bamba Dieng nga ne tekk wax dem ma tudd sa euh, kii yi nu mu tuddati euh, kii euh, Ismaïla Sarr nga kii. Patachis ñëw moom nga ñaan ñaan yu metti xanaa Patachis day day ñuqi wala day nuyu nuyu mu di am sax. waaw xam nga ñoom ñëpp moom. wala dafa am kóllëre rek. waaw ñoom ñëpp sax. Mm. samay nit lañ. waaw damay wax ne ku juum. Mm-hmm. waaye gis nga loo am te ko. Mm-hmm. dafa Euh, nit buy sonn si yow da koy xam. da koy xam. kooku moom nanguwut ñu wax sax waaye yàlla na yàlla barkeel rek. Mm. yàlla yàlla barkeel waaw góorgóorlu na bu baax daal. Mm-hmm. waaw mm-hmm. ñu ngi sant <laughs> ah. studio soxna May Diop yi ñu fiy nag. Ba Mor Joxate oustaz Ba Mor Joxate jox nañ ko yu am doole studio bi nag soxna May Diop eh kilim tuuti. ñu ngi commencé tàng fi mu nekk nii waxtu baa ngi dem sax <laughs> mais studio bi da ngay naan loo xam doo xam nu mu tudd daal. studio Soxna May Diop Tektal TV. Mhm. Euh, kon daal. Mhm. lan moo tax nga tudd ñëpp ay ñoom Bamba Dieng ay ñoom kii moom nga ñaanal kele rek bàyyi noonu ay wala ay code la. ah noonu ñëpp laay ñaan waaw ay code la. Mhm. Bamba yal na ko yàlla euh, gën a def mu nekk meilleur buteur. Bamba Dieng mu doon meilleur buteur. Ah, ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax. ndax suñu bu ko ñëw rek fekk moom kii na. gi ñëw ndax mu ñëw. mu <laughs> soobee yàlla. incha allah yàlla nañu ko dégg fu gën a sori marché feneen ak feneen. feneen feneen incha allah rabbi. ah kon Bamba ñaanal de. nee na nga àgg fu kawe bu baax a baax. daal li ma lay wax la. te mhm. ku am yar la tamit. am na yar waaw ku ñu fonk la wax dëgg yàlla. Mhm. àdduna yal na ko yàlla gën a lafal cat. amiin amiin ndax kon daal. Euh, mhm. ñu ngi koy sant bu baax di sant ñëpp daal. Bamba Dieng di wax de foofu nga nekk daal. boo fay jógee fexeel def fa lu drogue baa defoon. nga dem faneen def fa lu drogue baa deful gëm-gëm la na foofu nga nekk Okosa nekkoon na fa fexeel def fa lu mu deful ak Aliou Cissé ah Sadio fi nga nekk yow romb nga ñoom El Hadj Diouf ak euh, Sadio Mané kon demal Manchester nga defaat lu ñoom indi kóoloo yor ko deful yow sax moom dépassé nga ñooñu moo tax <laughs> mais defal lu crise deful rek. man dama bëgg Sénégal yi jëm kanam. man nag doonuma ak ay gars yi forcé relâche soxla ma ñaar dërëm kenn téeleen seen lépp. Mhm. ñun ñu ngi sant ñun ànd na yàlla mhm. doyloo lu ngor di jaay rek ñu jënde ko ko ñun dem suñu yoon bu baax a baax a baax façon yooyu Tektal TV. ñun ñooy télé bi masa def reportage ci Real de Madrid yu mel noonu te leen koy defee fépp. seen indi. Mm-hmm. waaw du ngeen xam yan ñu fa dugal. loolu moom wax leen ko lu leen yor téye leen ñun li ñu yéene mooy Sénégal da jëm kanam rek bu baax a baax. incha allah yàlla la ngóora loo ci man ngóora. lañ sa waxoon rek xam nga doon na si wax ne huit jours la huit jours la yàlla dénk nañu ba benn fan nga xam si lépp incha allah mm-hmm. te foofu moom ñu siy wax yaakaar naa ne bu ma jëlul pay day xam naa ne moom ah gisaguma ko daal mm-hmm. waaw foofu noonu kon daal góor buy gaaw a bu soobee yàlla bu ñu jëflantee mm-hmm. yàlla dina la may wér-gu-yaram bu neex yàlla suñu borom même bu nekkee mag ku am téeméeri at sax mën nga jàpp wàllu ngóor mu am ci kii ci premier jour boo ko jëlee rek boo xëyee di nga kontaan bu soobee yàlla incha allah rabbi macha allah dégg ngeen ko mitan tegtal jigéen bu di bànneex sëy nag mën nga ci dara ba bu soobee yàlla na ma si mënoon démb rek laa si mën hmm. xam boo ko fa di nga gis nee naa ko ko fàtte moom hmm. yaa fàtte waaye tegtal mu ngi fi hmm. diggante yokku rek yokku ba yokku incha allah rabbi Effenberg yi ci dëkk bi jigéen ñi am problème borom kër nag nga xam ne ah. ku ñëw wax dem bàyyiwaat leen fi ñu naan ñu jiñ koy rab tamit ndax comme maa ngi maye ji ay sëy waaw di maye ji ay doom waaw ah, nañ ñëwaat rek bu soob yàlla mm-hmm. képp kon moom dalay topp ba nga sëy topp la ba nga am doom bu soobee yàlla incha allah incha allah yàlla doon doom ju baax tamit ah, doom ju barkeel daal mm-hmm. doom ju am lislaam ah, am dina lislaam mm-hmm. kon ku am problème mu sëy euh, am góor yoo xam ne que du danay bëgg a fo nga bëgg ñu takk te bëgg nga leen jigéen ñi tamit di leen jox conseil bàyyi leen topp benn góor rek mel na kii la ñi yàlla sàkk ñëpp nga ne budul ñaanal ma ci kii. Hmm. da ngay ñaan lu baax pour am ko. parce que parfois yàlla bind la yàgg keneen yow ngay yàgg ñaan yàgg kii. Hmm. wala kooku respecté wu la loolu tamit dara jaru ko. surtout hmm. ah di ñi góor ñi tamit di ñaan jabar bu am xaalis. ñaanal yow sa bopp nga am xaalis. di dirise mu gën ñu. nga doon fexe ba am ko am xaalis ba pare mu lay arrosé lay garab ak di la yónneeg di la kéeg ñu naan ko nga sëyeeg yooyu <laughs> mooy loolu ñaanal yàlla yaatu na kay ñaan ko ah? léegi nag euh, ku nekk bi tamit ay kayit nag waaw kii comme da cee dogu nag la ñu wax diggante bi mu waxee 15 jours ak léegi diggante ba am nga ci ñu bari fa tabaarakallaa gën a sant rek hmm. gën a wax ni comme la ñu waxoon foofu émission boobu rek la ñuy waxaat ah. képp ku nga xam ne am na problème kayit hmm. fukki fan ak juróom ak bu soobee yàlla boo koy lijjante dina sotti insha allah la ko garanté ne insha allah yàlla may nañ ci ndam loo xam ne ñoo si jël première yaa ci jël première kàttanu yàlla képp ku nga xam ne amoo ay këyit nekk foofu. waaw bu nu jëflante bu soobee yàlla di nga kontaan. Mm. di nga ñibbisi bu neexee yàlla suñu borom. macha allah incha allah. léegi ku nekk bitim réew nag am benn liggéey ay liggéey gënal ko ko. Mm-hmm. ak koo xam ne que tamit dafa bëgg a yóbbu kim takk ak ku nekk fii bëgg a dem. Mm-hmm. ak koo xam kim takk da koo bëgg a war mu bëgg ko indiwaat. Mm-hmm. ak koo xam ne que tamit. Euh, ab xale nga ko fa nar koo fatt daal mu bëgg indi doomam jooju mhm. sinon moom doomam ji mën na ko indiwaat loolu mhm. mën nga ci mhm. maanaam xeetu dëddale ak boole koo xalam euh, doomam ànd ak ñu bon yépp loolu lépp mën nañ si luñ si jëflante rek boo ñu wooyee damay wax ne ku umpale dara rek daa fekk nga ne yow la waaye ku jël lépp dénk ko yàlla doo umpale ndax yàlla umpale wut te loo ko talal loxo rek mu may la ko mu may la ko incha allah rabbi incha allah jërëjëf sëñ Ass Birane Seck léegi waxtu bee ngi ñuy dab lan nga jàpp ne. Mhm. bëggoon nga ku la ko laaj ca fàtt na ko laaj ñu ko koo xam ku la ci mu neex la. Mhm. waaw xanaa parce que dèjà da ngay faj tension. Mhm. diabète. Euh, xam lu may wax rek. mooy buñ fi toog ba suuba sax. waaw daanaka lépp loo jël yokk ko yàlla. waaw fees na dara te moo nekk suñu dëgg. ndax dañuy wax ne lépp lu ñu aajo bu waaye indi. ñu delloo ko suñu borom. te duñ si am gàcce. duñ si képp ku am problème yu mel noonu. Ah, bu ñu jëflante lañ si man mm-hmm. dina la si taxaw jël lépp dénk ko yàlla suñu borom. jël ah, defe naa ne daal yaakaar naa ne question yi. bu ñu wax wàllum examen nag mm-hmm. ngi gërëm suñu mbokk élèves yi. Mm-hmm. ñax jot a weesu woon daaw. ren nag mu ngi ñëw. Ah, yaakaar naa ne daal yàlla moom ñu ngi see may résultat bu baax a baax a baax. di gërëm étudiantes yi ak étudiants yi. ñi nga xam ne daaw lañ jëflante. te fan la ñuy xamee si si tegtal. examen yaa ngi ñëw. waaw yal nañ si yàlla yóbbu ak jàmm. muy concours. muy lu ma doon. Mm. liñ si amee résultat rek yal na ko yàlla gën a yokk. yow même concours ay douane ay gendarme ay ENAM yëpp da nga koy réglé woon. ah naa ñu si dugg ay douane bëgg bëri ñu dugg ay policier. Mm. waaye lépp sant yàlla rek. lépp sant yàlla. Eh, uh-huh. yaakaar naa ko daal bëri na daal. yow loo tëlee loo tëlee. damay fa wax ne tëlewu ma dara ndax lépp yàlla ko yëpp. Mm. may lu ma gëm la. ndax eh, mayewu ma suñu borom mooy maye. te dana ñaanle ma ma may leen lu amul rek damay xam ne moom la. moom la lu am na ma xam ne moom yàlla suñu borom la. parce que man mayewuma. macha ma mhm. kon sëñ Ass Birane Seck euh, waxtu bi dab nañu. Mhm. koy sant ak gërëm tuddal ku la neex ak ku la ñëwal. Euh, waaw Cheikh kii. Seck Ndaram Seck Ndaram. Teranga Couture Teranga Couture. numéro xam ne aw ma fayam. ndax saa bu émission jàllee. Mhm. bañ waxuma émission sax day toog na ma lan nga bëgg. envoyé ma tiisi na ma bii laa la ñawal. kon maa ngi sant bu baax te ginnaaw yàlla lépp tamit yow la mm-hmm. kon maa ngi koy sant di ko ñaanal mm-hmm. fépp fu mu bëgg a àgg si loxo bi rek yal na ko yàlla àggalante yal na yàlla def place ba a dox ba mu gën koo man mm-hmm. lu mu man ren rek na ko gën man déwén di gërëm sama télé muy tegtal nga xam ne tey lépp moom la yal na ko yàlla gën a yokk studio sama jigéen soxna may soxna may Diop yal na gën a yokk mu ngi ku baax di la gërëm yow mi toog ndax euh, wax yombut mm-hmm. tey nga bàyyi sa temps yëpp ngir ñun jëmale askan wi mm-hmm. lépp loo sént si ñun mm-hmm. yal ko yàlla mootali yàlla boo ma a am gàcce mukk si ñun nee naa la bu ma demee ba naru maa jarañ askan wi yàlla ma fi yàlla jëlee ma bañ a am gàcce ah man de wax dëgg naa la sant bu a baax di gis lu baax ci yow. Mhm. ngay góorgóorlu ci soxlay askan wi. Mhm. di ci def loo man euh, ànd ak lewet. Mhm. man nee naa leen baax rek nii doyuma ko dara de. mais baax ak résultat sëriñ boobu defee loolu rek day baax. sëñ buy def résultat nag te yaruwul mu ko neexee moo xam loolu moom kii la mhm. man daal li may bañ jël àlalu jàmbur tëdd fi nga toog mhm. bàyyi ak lépp yàlla mhm. euh, ba pare di enquête sa xaalis bi kuy la war a di sant ñëpp uh-huh. sama xarit sama soppe tamit ak Petit Sow Petit Gaw Sow sama caméraman yi ak docteur Wade docteur Wade yokk ba yokkoo di ñaan yàlla defal leen jàmm di sant Papis Diop ak euh, maam As Camara. maam As Camara. muy sama xarit di sama soppe. Mm-hmm. ku baax lool si man. macha allah koo xam ne daf bàyyi lépp ngir nit dafa jafe. dafa jafe waaw yal na ko yàlla gën a yoggal. amiin yokk fanam. amiin ibbi wërsëgam. di sant euh, Cheikh Diop bu Italie. Mm-hmm. Cheikh Mbaye Diop mm-hmm. sama xarit sama soppe. di sant Sayer. di sant Mouhamed Wade. Amérique. Mohamed Wade <laughs> waaw di ko sant bu baax a baax. Mm-hmm. Euh, di sant sama jigéen. Mm-hmm. muy Nogay Diop. Nogay Diop. bu kan Kane. Seynabou Kane. Mm-hmm, Kulim euh, Diop ak Cheikhouna Diop waaw Cheikhouna di sant ñëpp. di sant ñëpp di wax ne yal yàlla gën a may. amiin ba ñuy gën di kontaan si ñun si ñun. ndax euh, yal na yàlla àggale lépp daal. yàlla àggale lépp daal yàlla bu mu nekk suñu mujj toog fii. amiin Sénégal fi yàlla def jàmm réew mi. lépp luy gàllankoor li ñëw yal na ko yàlla saafara. amiin macha allah seen yëpp di gërëm sama soxna madame. Mm-hmm. di ko ñaan yàlla di gërëm samay njaboot. Ah. di ñaan yàlla yàlla def jàmm. Mm-hmm. di gërëm mi ngi yokk. waaw mu ngi yokk baax wax dëgg mm-hmm. yàlla am. Ah. di sant ñëpp ñu siy def. di gërëm waa Casamance. kër yi moom daal lu ci bëri xalootu moo koy joxe de xalootu tudduñu ko ah yaa koy def ba léegi. Ah, waaye loolu moom ñoo koy joxe. Ah, ah. waaw waaye nag. yàlla yàlla jël ponkal <laughs> ngeen bàyyi xel ku bëgg a dugg nee na boo dugg xalootu bu la neexee nga defal ko caméra surveillance sax. te xam ne tëdd fay nelaw bu baax a baax a baax. lañ si yéene daal yal na ko yàlla mottali. di gërëm waa Casamance bu baax a baax. di gërëm waa Diourbel. waa di gërëm waa Cekkeen. Mm-hmm. di gërëm suñu famille. di gërëm waa Afeñam bu baax a baax. Mm-hmm. ndax euh, taxawaay bi rafet na. di gërëm waa ndax ba mu fi nekkee ba léegi mhm. euh, yaakaar na ne mosuma dégg lu ma naqari si ñoom te maa ngi fay bëgg a yàgg mhm. te yàlla naa fa gën a yàgg yow ku jotee yow euh, <laughs> mhm. maa ngi leen di sant bu baax ndax dëkk dafa metti samay dëkkandoo euh, dakaar xam nga xat na fa dëkkee ay nit rek koñ ñëpp jox la gëdd rek sant yàlla di leen baalu àq bu baax a baax am ah, maanaam man nga leen déranger te duñ la ko wax am ah, maanaam mën nga leen tooñ di baalu àq sénégalais yi su ma fi waxee loo xam ne dëng na sama matadi la su fekkee lu jub la yàlla suñu borom la yal na yàlla may dégg-dégg yal yàlla may mujj gu rafet ndax mujj gu rafet ak am solo jërëjëf Cheikh sëñ Asbina Seck jërëjëf jërëjëf mbokk yi seetaan man nag ki ma abiyee euh, Sam Couture la euh, nekk ca booy dem site asec na Derklé euh, booy dem école Khadim ma Mamadou jaay Diop ak na Diop ak ñoom ñëpp 77 645 01 73 numéro baa ngi noonu mun moom may faral di ñëwal lu bëri bu sekk ndaanaan di xaw a doog a ñëwalu ma rek wala ñeneen ñi di kii moom moo fi nekk bu baax a baax sam moom ma du Ndiaye Diop gërëm nañ tamit waa Allemagne Ousseynou Ly Allemagne allemand vrai allemand gërëm nañ ko bu baax a baax euh, di suñu xarit euh, ak Dieynaba Diabaté Allemagne mi d'enfant France euh, di suñu xarit bu baax Sayer Fall Espagne Sexnar Fall Italie mm, ñaaña ja Allemagne gërëm nañ ko bu baax a baax ñu ngi fii ci studio Soxna May jóg gërëm nañ tamit euh, magu soxna may jóg di soxna Ndey Marème Diop nga xam ne ko koor gi muy def euh, naafila yi euh, ak waxtaan yu baax yi ci Tektal TV gërëm nañ soxna may Diop studio soxna may Diop gërëm nañ sëñ Fallou mbàkke Diop gërëm nañ tamit équipe technique bi àndoon Pam moor Oustaz Mor Jaxate borom agence immobilier bi gërëm nañ ko bu baax a baax a baax yoon bu mujj ci biir émission bi numéro sëñ As Birane Seck borom leeral bindal 78 147 04 83 78 147 04 83 76 461 02 92 76 461 02 92 boo ko jotul am na WhatsApp bu kër gi jafee jot rek euh, kër gi jafewut a jot de bu dee moom jafe naa jot kër gi amul réseau 33 824 72 09 33 824 72 09 sëñ As Birane Seck borom leeral gërëm nañ ko bu baax a baax gërëm nañ Tamsir Diouf ak Malick Jité ci Grèce ñoo xam ne que ak El Hadj ci Allemagne. di partage mbirum Tektal TV fu ne ci àddina bi moo doon seen mbir bu baax a baax équipe technique bi naan àndaloon moom it docteur Wade bu Casamance nekk ci Baye Samba Diop Oumy Kane yaayam am saay baayam euh, Cheikh Abdoulaye rakam Mandawe magam nekk ci gërëm nañ Samba ak euh, Samba Samba Amar ak Fadel Nam ak euh, Soxna Samba Aïssa ca Espagne gërëm nañ tamit Petit Sow ci équipe technique bi Gaw Sow ak maire Khady Ndiaye gërëm nañ tamit ñëpp ah soxna May Diop ci réalisation bi sëñ Fallou Mbacke Diop soxna Seyna Diop gërëm Oustaz Mor Diakhaté ak xaritam oustaz Taïb Socé ak ñoom Babacar Diakhaté maire Badiane Fat Diop ak ñëpp xewal dikk loraa ngi dakk sëñ As Birane Seck borom leeral Tektal TV télé tollu ko fii abonné leen ku mu neex bul abonné ndax ñun njëriñ leen yor abonné rek du force waaye Tektal TV moom ku abonné wul di nga dugg ci YouTube bi Tektal TV page Facebook yi Tektal TV l'officiel jaajëf